cher euh, internaute DKR 221 daleen ak jàmm ci seen euh, émission bés bi comme niñ koy defee saa su nekk euh, ñu am mbégte également di dalal Imam Kanté mais tey spécialement gis ngeen nous sommes au mois de Ramadan donc laata ñuy seq ak moom jotaay bi rek dañuy bàyyi mu nu ak yéen également mu mu def li ñuy defee maanaam def comme ñu koy def su ko record ci ci ci ci présentation bi alhamdulilah alamin Thioune maa ngi lay. maa ngi lay fay sa nuyoo. ok. Euh, qu'il la bénédiction euh, di nuyu képp koo xam ni yaa ngi topp DKR 221. Mm. di sawar saa di waxtaan ak yow di euh, tontu say laaj. Mm. di ndokkeel toute la umma. et particulièrement les musulmans du Sénégal ci ndorteelu koor gi di baalu àq ñëpp tamit di euh, baal ñëpp àq àq dafa sew ah. moo tax li occasion la chaque fois di baalante àq surtout di kontaan tamit ci le fait que ñu bokkandoor tàmbali koor gi mm-hmm. espérons que à la fin aussi ñu war a mën en li ma bëggoon wax sax mooy que. ñu koriteendoo parce que xam nga loolu tamit problématique divergence bi. du ñàkk peut-être sax nga am ci laaj. xam naa gëj na am mais gëj na donc euh, sant yàlla ci niñ ko commencé uh-huh. euh, aussi mm. message corps aussi mooy message yu euh, dal. dal message yu maîtriser say pulsions. ok te loolu mooy taqwa bi nga xam ni. moom la yàlla wax ci alxuraan ne mooy objectif u koor xeex ak sa bànneexu bakkan euh, te foog naa loolu dañ koy soxla saa su ne rawatina fu nekk ni Sénégal euh, situation bi ni mel ni mu ni Skinco, c'était justement le, le, les mots d'introduction avec euh, Imam euh, Mahtar euh, Kanté. Donc, nous fascinons wax ak mom cheikh ak mom jotaay bi ci question yi nga xamanteni c'est des questions d'actualité. Euh, la première moy les arrestations yu bari des hommes politiques, des activistes, des médecins euh, ku wax rek euh, suba ñu woo la tribunal wala ñu woo la police pour pour auditionner la pourquoi ñu tam ba Sénégal tey nit ñu bëri dañuy ragal la yëkkati kàddu euh, di addu ci mbir bi nga xamante ni moom mooy actualité politique wala lu soxal euh, li nga xamante ni mooy seen république également beneen question bi c'est l'affaire Ousmane Sonko euh, gis ngeen li nga xamante ni moo xew ñu woo ko tribunal en diffamation ak mag Mame Mbaye Niang loolu jur ay bon fitna parce que déjà loolu moo waral Euh, li nga xamante moom mooy l'hospitalisation de Ousmane Sonko euh, hospitalisation boobu moo jur même euh, l'arrestation de la mise en la garde à vue du directeur général de Souma Assistance di docteur Babacar Niang jamono ji ñu wax ak yéen Euh, mu ngi ci loxo yoon donc euh, loolu yëpp dina bokk ci euh, li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee aussi fan lañ jëm bu fekkente ne noo topp allure bi ak li nga xamante ne ñuy gis manifestation yu bëri bu amee am ay nit yu ñàkk seen bakkan ñenn ñi également di ñàkk seen liggéey loolu yëpp également est-ce que comme ni mu ko waxee tax waa boobu noonu duñu profiter ci weeru koor bi fas yéene régler lu de manière définitive comme ça en mille vingt-quatre ñu organiser des élections libres transparentes paisibles euh, ñu fal ki nga xamante ni moom la Sénégalais yi wóolu teg ko ci bopp réew mi également li ñuy waxtaane dina bokk ci la troisième candidature bu mu defee sorti ci benn journal bu tuddee ko l'Express point fr donc ñooñu euh, di ko interroger mu daal di xamal ñu exactement ne Euh, am na droit def troisième candidature donc léegi des na ci li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam ak bëgg-bëgg bii di parti loolu yëpp dinañ ci ñëw euh, la dernière partie ce sera sera consacrée justement à l' actualité internationale gis ngeen il euh, y a rapprochement entre la Russie et la Chine alors lan moo ko expliqué gis ngeen également le mandat d'arrêt euh, contre ki nga xamante mooy Vladimir Poutine est-ce que exactement ce n'est qu'un leurre wala illusion la wala mën na nekk en tout cas dinañ gis avec euh, a Kanté mais aussi dinañ dem Israël pour xool pourquoi Euh, cette tension entre l'Israël et la Palestine toujours dafay nekk une situation catastrophique parce que actuellement il y a des choses qui se passent là-bas mais qui sont horribles alors c'était tout pour l'introduction mais bien avant ñu dem ci li nga xamante ni mooy premier point bi imam euh, gis nga l'actualité politique euh, bu Sénégal lu doy waar moo fi commencé parce que arrestation yi ñu bëri wax nañ ne gëjoon nañ ko gis ci jamono bu yàgg bi c'est comme si aujourd'hui démocratie boobu ñuy wax la état de droit bi xaw def am recul parce que arrestation yi bëri na comme si une tentative de musellement waaw arrestation yi moom bëri na euh, tey nekkul li ñuy wax ci tubaab tendance bu rafet daal ci réew mi nekkul euh, euh, lu baax nekkul lu yiw ah. nekkul lu indi daal au contraire day yokk fitna parce que nit ñi dañuy jàq bu ñu jàqee nag mën nañ def lu bari loo xam ni du ànd ak dal Euh, parce que buñ leen a kaay wuy si. Oh. wala ñu ngi lay wër. comme ni mu ko gisee temps yi ci presse bi. du ñëpp a daal. am na koo xam ne suñ ko ne ñu ngi lay wër rek mën na def loo xam ne. Euh, mën na tiit mu doy waar. Euh, donc tam dajale xale yi nii ci kaso yi. Hmm. nekkul image bu rafet ci Sénégal gëj na fi am su fekkee sax mës na fee amee ci ampleur bu mel bi peut-être temps Senghor étudiants yi. defoon na ko. maintenant président Macky Sall euh, mu ngi doon euh, wax euh, ci benn interview di wax ne Sénégal bu dul woon vraie démocratie authentique hmm. kon Sonko mi réglé nañ problème am bu yàgg et ah, man bi ma ko déggee sax dama ñaawlu trop wax boobu parce que loolu mooy wane ni kon ñàkkul seen cas waaw loolu loolu daal dafa xaw doy waar bu ko hmm. defee léegi nag am na yoo xam ne jarul arrêté nit jarul fanaanloo nit kaso euh, am na yeneen procédure euh, ñu mën a utiliser bu fekkee nag euh, nit ki def na loo xam ni dañu jàpp ne jaaduwul ñu jaaree ko ci ay procédures yoo xam ni. comme ay mise en demeure. yu mel noonu. Ah voilà ak yoo xam ni sax dafa laaj jëlale rek tant que nekkul benn acte public boo xam ni dafa ñëw yàq dara lu leer donc je pense que yooyu nañ ci bàyyi xel rawatina. même de l'autre côté du pouvoir di fa gis tam ay jeunes ak yu mel noonu yoo xam ne ñoom tam léeg-léeg ñu gën def ay sorties yoo xam ne mën nga wax ne ñii war na leen woo. scandaleux. voilà kon ay taal kër diw ay nay rey. voilà kon euh, xale yi tamit damay jàpp ne toujours rek da leen nangul ne ay xale lañu. am na yoo xam ne buñ ko defee nga génnle ko bàyyi ko deux jours trois jours. coow li jeex coow li mais bëgg dajale fi nekk nii policiers yi gendarmes yi ñuy ñott di topp nit ñi ci quartier yi di arrêté arrêté je pense pas que tension bu baax la. plus ñuy gën a jege élection yi plus loolu day gën a yokk euh, tension donc euh, président li mu war a def c'est plutôt euh, sortie buy rassurer citoyens yëpp ah demander aussi maintenant à plus de responsabilité de à tout le monde parce que il est vrai que maintenant boo nekkee chef de parti chef d'une coalition politique c'est très difficile nga nekk au-dessus de la mêlée moom moo daf nekk ni président Macky Sall actuellement il est beaucoup plus euh, le candidat potentiel de Benno Bokk Yaakaar que le président de la, de la République. ok ça veut dire que donc la question de euh, de de de de de, de maanaam le fait que nga nekk paysan nekk chef de parti nekk chef de l'État ça veut dire que c'est maintenant une nécessité ñu xool la lañuy tàggoo ñaari yooyu nga xamante ni des fois dafay am genre conflit d'intérêt. je pense que d'ailleurs même président Macky Sall dafa engagé woon. pour ci promesse yi ok. c'était une autre promesse bu mu. qui n'a pas tenu. qui n'a pas tenu <laughs> euh, te pourtant. Euh. voilà te loolu ci doy waar. te ah. pourtant c'est pas euh, par hasard que mu teniroon promesse boobu et c'est pas une promesse banale. banale comme affaire mandat bi c'est-à-dire que dafa diagnostiqué woon la situation le parti état ak dommage yi fi def. ba wax ne léegi man suma ma ñëwee na séparer. dinaa séparer après gis nga. il a été par euh, le pouvoirisme. et aussi il euh, évite même ce débat. bien sûr ah, parce que lu lu mu ciy wax lu mu ciy wax euh, comme débat transhumance bi sax aussi au départ dafa waxoon naa après mu ne sama yoon ci donc politique daal mi ngoog donc pouvoir dalay dalay corrompre lay jox beneen état d'esprit mais kon daal war nañ ci réfléchir bu baax a baax. gis nga yooyu nag man souvent. Ah. foofu laay xawee jam suñ ko mënee waxee noonu société civile. société civile am na débat yoo xam ne ñoom rek ko mën a yëkkati. ñoo ko war a posé. parce que euh, politique yi am na foo xam ne ñoom ñëpp fa yem ci bëgg pouvoir ak conserver pouvoir donc ñoom seen bopp même suñ ko bëggee sax duñu am recul bi. ok ndax ñu ngi ils ont le nez euh, ci pouvoir ki fa nekk yor ko da koy bëgg a conserver di ko reproduire ki ko jotagul bëgg fexe jot ci. par contre société civile nag ñoom ñoo war a am recul. Euh, man am na débat bu ma soulevé woon par exemple wax affaire élection yi. ni mu tëddee nii. war nañ ko mën a def di autre façon moins coûteuse ah boo xam ne aussi ñi ñuy euh, votel ils son beaucoup plus représentatifs que ñu jaxase leen ci ay liste nii rek. moo tax léeg nga gis ay façon député yoo xam da nga naan ñu ñan lañu est-ce que ay député lañ. Euh, plus aussi euh, maa ngi doon wax affaire donc même penc mi ni muy demee mandat yi. mais yooyu société civile ñoo ko war a soulever def ko ay débat public. mais société civile tam ñu ci bëri léegi. ñoom itam léeg-léeg itam dañuy topp beaucoup plus euh, politique yi ci seen i thématique alors que ñoo war nañu am benn recul ci wàll boobu quoi. mais loolu lu jar lu jar a waxtaanee la. ok surtout euh, li nga wax euh, rôle dafa am li ñuy tuddee dans une démocratie ñu tuddee ko la société civile l'opposition bi nga xam ne dafay opposé ak benn presse boo xam ne dafay libre di relayer li xew ci penc mi mais jamono ji on a tendance dañuy gis. Euh, li nga xamante ni mooy presse bi dañ leen xaw a euh, muselé parce que am na ñoo xamante ni déjà Kampaf euh, Ndiaye di Walfadjri dafa bind dafa wax benn mbir ci wàllum justice ñu indi ko tëj ko. Euh, ba léegi mu ngi ci kaso gi mu am ñeneen ñoo xamante ni tey euh, ñu ngi sous contrôle judiciaire ku mel ni Pape Alé Niang moom également ñoo xamante ni société civile lañ bu ñu waxee ñu ne leen noo yéen da ngeen far comme euh, am na Seydi Gassama de ki ki jiite Amnesty su ma juumulee à chaque fois bu génnee dañu naan non kii c'est un partisan ku laqatu derrière Amnesty mais en réalité il n'est pas de la société civile est-ce que aujourd'hui nan la ñuy def ba ñu joxe exactement ñi nga xamante ku ne ak sa ko pleinement dans une démocratie bi ñu xam ne exactement ñun suñu démocratie c'est une démocratie à l'image des autres. ba euh, démocratie ci boppam moo yombul. dañ ah. koy wax rek mais. day laaj nga gëm ko. Euh, day laaj aussi nga am humilité bi mu tollool quoi. Euh, maanaam xam ne réew mi kenn nga rek ci biir doomu réew mi. kenn nga ci citoyen yi. rawatina nag boo amee pouvoir yore appareil d'État doxal démocratie ci yow lay gën a metti encore. Euh, parce que dafa laaj vraie éthique vraie humilité comme ni ma ko waxee. Euh, dafa laaj nga nawloo aussi askan bi ak citoyens yi te jàpp ne euh, tu n'es pas plus qu'un citoyen mais bu fekkee ni da nga am responsabilité publique. surtout donc loolu la et aussi voilà ñu qu'on arrête de se faire peur entre nous. voilà ñu xam ne réew mi ñu ñëpp a ko bokk. Uh-huh. ku nekk am nga ci sa àq ak yelleef boo xam ni charte réew mi daf ko wax. ñu bàyyi nit ñu féex ñu bañ a. ërtal kenn dégg nga ku nekk war a mën euh, indi li mu bëgg indi ci penc mi euh, ñu waxtaanee ko euh, bu nit ki nag juumee tooñ wala dara alaa kulli xaal loolu tam foog mu am nuñ koy lijjante mais actuellement dama gis ne di lijjanti yóbbu ko ci yoon dafa dafa dafa bari lool ba jàngkat yi gis nga niñ ko tuddee judiciarisation aujourd'hui pas seulement de l'espace politique mais aussi même de l'espace citoyen de l'espace public léegi fi nekk daanaka chaque jour euh, ku saqat ñu porter la plainte wala procureur woola wala dig woola euh, après buñ la woowee ñu ne léegi sax jàllale nañ ko kaso euh, garde à vue nangam naan seebi ko taal nangam naan non ça c'est pas une bonne image c'est-à-dire que ni su li continuer ça veut dire que donc on a raté quelque chose dans notre démocratie mais nañu ànd ak nangu contradiction yi nangu débat public bi mais en même temps aussi j'appelle à plus de responsabilité dans la prise de parole publique euh, kuy wax ci intérêt public bi aussi na nga nawloo nit ñi euh, koo bokkul xalaat tamit na nga ko naw euh, jox ko cëram ba pare joxe sa xalaat quand même mais bu kenn yóbbu fitu kenn bu kenn tere kenn wax bu kenn jàpp ne yow mën nga wax lu neex dara la ci fekk parce que da nga jege nguur bu kenn jàpp tamit ne parce que ci opposition bi nga nekk Euh, lu la neex nga wax euh, te kenn du la sañ a jàpp parce que euh, dañ naan jàpp nañu nit ci opposition dañ ko tere wax donc responsabilité laay demander responsabilité mais en même temps vraiment la liberté d'expression dégg nga ñu ñu ñu accordé ko citoyen ni ko charte réew mi waxee te loolu réew yi tane ci wàllu dal ak jàmm yëpp mooy réew yi gën a am doole ci jox citoyen yi espace yu ñuy waxee seen xalaat alors euh, mais mais mais tey tey bu ñu doon boo ñu doon defal situation euh, démocratie bu Sénégal au vu des régimes précédents alors euh, ban état le Sénégal nekk en termes de démocratie démocratie. bon. recul wala dañoo arrière wala dañoo stagné. non fi mu nekk nii moom dañu dañu dañuy dañu dañu reculer. dañuy reculer loolu laa gis. loolu laa gis dañuy reculer maintenant quelle que soit nag explication bi mais objectivement. dama gis su ma xoolee indicateurs yi. soo xoolee tey tey jii effectivement euh, nit ñuy jàppee nit yi nekk ci presse bi ak tam ñu nekk ci opposition ak tam ñu nekk sax ci société civile euh, et cetera comme ni ma la ko waxee dossiers yi ni mu bëree fi mu nekk nii au niveau du tribunal euh, donc fi mu nekk nii manifestation yu bëri léegi interdiction yi bëri na. bëri na waay. voilà alors qu'il faut les encadrer donc aujourd'hui dama gis tamit benn radicalisation des deux côtés euh, dégg nga yoo xam ni presque dañuy woote à l'affrontement euh, dans la rue entre euh, la coalition du pouvoir ak les les, les opposants donc wax dëgg yàlla les clignotants sont au rouge donc dama gis ne ñu ngi reculer ci wàllu ci wàllu démocratie bi maanaam doole ak ërtal nit ñi ak ku nekk di wax la neex du seet noo ci génnee moom moo note fi mu nekk nii te loolu c'est pas une démocratie euh, d'accord alors euh, si ligne de toujours si point bi nga xamante ni la ñuy mooy euh, euh, justement démocratie dañu gis ne. Euh, euh, les manifestations récentes gis nañu par exemple ay élèves dañ leen mujjoon jàpp ay enseignants euh, Saint-Louis non depuis une semaine en tout cas le jeudi passé di une semaine école xale yi jànguñu parce que danoo jàpp seen i moroom élèves jàpp seen i moroom seen professeur Dakar même démb le génnee élèves yi danoo nekkoon di génne les élèves du privé loolu mu nekk quand même loo xamante ni c'est comme si aujourd'hui il y a pas d'exception on est tout le monde aujourd'hui sous le collimateur de de sa justement de ces de arrestations yi nga xam na moom moo xew ci jamono ji élèves étudiants euh, professeurs médecins politiques activistes tout le monde. waaw loolu laa wax ne du tendance bu baax daal ci réew mi et que euh, à long terme aussi ça va jouer contre le pouvoir. contre le pouvoir. waaw donc loolu. c'est voilà bien donc euh, il faut faire très attention à tout ça donc euh, rawatina xale yi ñëpp xam nañ mouvement de grève yi ni muy demee. xale yi moom euh, bu ñu naree yàq fenn rek mën nañ positionner des forces de sécurité pour ñu bañ yàq ay batiment wala euh, gaañ ay nit ci mbedd mi à part ça ñu bàyyi leen dellu seen kër surtout aussi gën a sensibiliser les parents ci côté boobu euh, yeneen secteurs yëpp tamit syndicalistes yi enseignants yi et cetera bu fekkee ni képp ku génn fi mu nekk nii wax loo xam ne da nga dingat état bi wala le pouvoir public ñu bëgg ko régler ci convoqué la yóbbu la ci procureur loolu à terme day dem ba pouvoir bi euh, ñëpp dañ koy yëpp ba pare ñëpp dañ koy défier jàpp ne euh, dafa nanguwul ku joxe xalaat boo xam ni favorable ko. day désacraliser. voilà donc euh, loolu moo tax ma gis ne nañ def ndànk bu baax ci wàll boobu am na yu bari yoo xam ne nekk état bi na ko jëllale. ba yoo xam ne nag c'est flagrant nga xam ni wax dëgg yàlla nag nit ñëw na bëgg yàq loo xam ne lu public la wala mu nekk problème privé. entre ay nit loolu moom ñu ci yoon c'est normal. d'accord voilà donc euh, euh nga xamante moom mooy docteur euh, Makhtar imam imam pas docteur imam imam euh, écrivain mais aussi di addu ci li nga xamante moom mooy espace public bi a chaque fois qu'il s'agit de des questions d'intérêt général bokk na ci aussi ci mbirum Ousmane Sonko. Euh, ñu gis nañu Mame Mbaye Niang moo ko porté plainte l' devenue un peu euh, un peu parce que dafa xaw benn allure allure bi mooy euh, moo jur l' arrestation du docteur Babacar Niang allure bi également moo jur exactement l' arrestation de de de de du porte-parole de son parti El Hadj Malick Ndiaye ak keneen koo xamante ni maire la bokk si Pastef ak ñeneen ak ñeneen donc procès boobu nga xamante ni le 30 juillet prochain la ñuy def benn union spéciale. alors yow tey euh, au vu de ce qui s'est passé ak euh, le 30 est-ce que lan nga mun def comme analyse euh, loo xamante ni tey mën nañ ko dund. waaw bon procès bi lu normal la ci wàllu bu fekkee Mame Mbaye Niang dafa jàpp ne dañ ko tuumaal loo xam ni daf ko bëgg a lijjanti au niveau de du tribunal droit am la kenn mënu koo empêcher mu def loolu te procès bi tam comme. Euh, ça suit sonkour ah li ñu mën a ñaan rek pour man fi mu nii mooy que le procès se passe euh, correctement sans moom ay dégâts collatéraux léegi nag euh, moo tax je crois que appel bi may lancé man ci côté Ousmane Sonko ak ñi mu àndal mooy vraiment éviter lépp loo xam ne rek day yokk tension à la tension li ma ci jublu mooy se rendre avec dignité au tribunal. au tribunal avec ses avocats et tout et loo xam ne fi mu nekk nii euh, kenn mënu ko def euh, Sénégal nit ñi la seetaan. sans qu'il soit accompagné. Euh, waaw qu'il soit accompagné au moins waaw qu'il soit accompagné je me dis peut-être au moins de voilà de son entourage le plus proche dina dina doy léegi su ko defee nag loolu dina baisser tension parce que nit ñi lu ñuy gën di bari rek. tension bi di gën a yokk te aussi man je trouve que même ci côté sécurité personnelle Ousmane Sonko sax bëri waaye nit euh, wu ko sax parce que lu ne mën na cee rax. ne mën na cee rax donc je me demande est-ce que mu dem discrètement au procès gënul que actuellement ni muy demee nii parce que lu ne mën na rax ci mbooloo mi. ci attroupement bi ci attroupement yi lu ne mën na cee rax donc euh, loolu loolu laa ci loolu laa ci wax aussi. Euh, côté force de sécurité de défense ñoom tamit nañ euh, jouer seen rôle euh, républicain mooy prendre toutes les dispositions pour que un homme politique c'est vrai c'est un citoyen il est justiciable mais dimension politique am tax na aussi ñu war a jël des dispositions particulières pour protéger sa sécurité et son intégrité physique spéciale oui lu mu laaj rek war nañ ko def parce que souvent moom laa lay wax bu ma nee dañu reculer ci démocratie bi loolu laa bëgg a wax tey jii Ousmane ko mën nañ wax ne tey euh, ce serait le ni ñu koy waxee encore le le président de opposition statut boobu ñu tudd encore le leader de l' opposition waaw am na statut voilà donc euh, mënuñ ko traité comme benn c'est un simple sénégalais comme ça voilà donc nañ ko jox ak yelleefam euh, encadré ko rassuré ko mu dem ci procès bi et que le procès soit libre et, transparent mais. Uh je pense que daal y' a pas y' a pas à de l'attention pour le pour le procès du du 30 quoi. alors euh, ci ci procès boobu la ñuy toog sa parce que dafa am li euh, ñuy bañ. euh, déjà le ministre euh, Ismaël Madior Fall dafa jir noonu ne euh, comme si lui il a donné la, le verdict déjà maanaam euh, atte na ba parce que d'après nu mu expliqué euh, dafa condamné directement Ousmane Sonko te condamnation Ousmane Sonko daf koy empêché li nga xamante mooy bokk ci présidentielle 2024 que on peut imaginer quand en la présidentielle que mu am sans Ousmane à partir de ce procès euh, bon li muy njëkk a wax mooy que Ismaïla Madior Fall perte na lépp luy crédibilité morale et intellectuelle ba ah bon parce que Ismaïla Madior Fall affaire mandat bi li ci waxoon bu génnaatee en public euh, génn ci ba set wecc vraiment perte na crédibilité morale am ak intellectuelle Sénégal rek je pense nga mën a nekk intellectuel de haut niveau comme ça nekkoon aussi nekk aussi un politique euh, nga def yu mel nii ba pare occupé waat encore ba tey ay postes de décision publique yu mel nii presque Sénégal rek la mën a xew sinon dans d' autres pays euh, président bi du ko du ko xëcc ci wetam parce que day wàññi crédibilité ba pare moom ci boppam daanaka dootul am sax presque fu muy exprimer woo donc maa ngi fàttaliku bu muy wax journaliste boobu xanaa déggoo français trois fois trois fois kon léegi bu génnee ñëw di euh, waxaat ci lu mel ni day doy waar ñaareel ba aussi man dama seetlu ne moom Euh, chaque fois daal day day jéem a influencer opinion bi te loolu du cëram il est le ministre de la justice mooy justement bañ a influencer kenn mais lii mooy procédure kon par exemple dossier boobu man gis naa ni mënul léegi sax bañ a wax wala bu ciy wax tamit rek day wax en tant que l'État va garanti un procès transparent et libre point pas plus pas plus boo gisee tey jii boo gisee tey jii mais boo gisee tey jii pays européens yi ay États-Unis mel noonu na nga seetlu justement poste yu mel noonu ay procureur ministre de la justice mun nga toog ay at sax doole leen dégg wala doo xammee ni kii mooy ministre telement dafa sensible tellement dafa sensible donc euh, moo tax lu mel ni euh, Madior Fall warul sax génn di dugg ci dossier bi euh, daf ci war a wax rek ni je rassure que ni procédure normale yi sera respectée dégg nga mais euh, influence opinion bi déjà pour wane ni euh, verdict comme ni nga ko waxee ah. c'est pas au ministre de la justice de donner un verdict. un verdict anticipé ah. wala sax wala sax wala sax implicite. Ouais. c'est grave je me demande est-ce que bu nekkoon ci pays européens yi sax mënuñu am société civile boo xam ne mën nañ ko euh, je sais pas en tout cas def pression ci président voilà. parce que bu mu interférer ci dossiers yi surtout dossier yu sensible mel ni y a quand même. Euh, bi passé ak kii nii. donc y a de trois déjà. donc dossier bu mel ni simplul simplul euh, donc daf ci war a mandu parce qu'il est là juste lui pour protéger tous les citoyens. tous sa citoyens. il est ministre de la justice. ministre il il doit aider l'institution judiciaire qui administre la justice au nom du Sénégal au nom des Sénégalais mais pas. di di di jël position contre quelqu'un donc euh, man daal vraiment euh, man moom moo tax li ma la wax rek perte na crédibilité morale et intellectuelle waaw pour man dafa waroon bàyyi yi yëpp nii euh, dem rek di jàngale au moins jeunes yi mu former leen sur sur le droit la droit constitutionnel <laughs> mais mais amatul crédibilité dans l'espace public. dans l'espace public non voilà ni aussi crédibilité sax aussi pour ministre. pour ministre de la République il n'a plus pas en tout cas à la parole publique waaw. parce que voilà ah, mais quand même je pense que am a un minimum de sérieux aussi de respect de l'opinion publique quoi am na loo xam ni boo boo nawloo nit ñi nawloo tamit sa cër doo ko def te man dama gis ne lajj na ci ñaar yëpp mooy que bu nawloo sénégalais yi warul génn naan sénégalais yi euh, dossier bi lii ak lii presque ba joxe ci verdict ak tamit di euh, waxoon que ne yow déggoo tubaab léegi nga génnaat daal ne non loolu dama ko waxoon nii rek mais wax dëgg yàlla soo nawloo sa cër euh, universitaire bi mais euh, doo leen tirer vers le bas comme ça surtout d'accord alors loolu euh, mooy exactement euh, la deuxième la première partie la deuxième on va l'attaquer avec cette fois-ci euh, cette même question de troisième euh, candidature bi nga xamante ni moo xewoon en 2012 alors le président de la République Macky Sall gis nañu ko mu dem fële si réew Tugal mu am ay journalistes yu ko questionné ci troisième candidature il a le droit Euh, maintenant, il reste euh, assez militant et sympathisant et lui-même à sa, sa volonté bu xool bu euh, jotee dina ci wax c'est-à-dire que pour lui pour le débat juridique n'est plus posé mais déjà c'est un débat politique. ah oui man je pense que lii c'est ça n'apporte rien de nouveau ah loolu je pense que ci position boobu la nekk man au moins je me dis au moins depuis la réunion de la CEDEAO. ok ci affaire mandat yi bi mu bañee signé moog Ouattara. boobu laa ne c'est voilà boobu laa ne donc c'est clair parce que am na ku ma laajoon loolu laa ko wax dama ko ni si c'est réservé ça veut dire que dafa bëgg a candidaté mu ne ma ah, lu tax ma ne ko parce que il s'est pas réservé pour un autre. il s'est réservé pour lui-même. oui ah oui ne fait pas de sens Macky Sall dem ne léegi tuma ci limitation mandat réservé mooy loolu. parce que loolu da ngay jël position parce que dafa ci jëloon position n'est-ce pas daal ne lii moo fi ay moor yu bëri yi nangam nangam léegi je vais régler ça n'est-ce pas kon léegi su ñëwee nii dama réserver ça veut dire kon génn na ci léegi nag euh, te génn na ci boobu c'est pas parce que dafa am beneen homme politique boo xam ni Macky Sall dafa jàpp ne kooku war na am n mandat c'est pour lui boobu la man laa ne maintenant il est en train de après muy poser yeneen actes yu bëree bëri. mais est-ce que Macky Sall par exemple en tant que Macky Sall 2012. ki fekkee ay ce que war nañ ko dégg ci troisième mandat troisième candidature. Ah, en principe non en principe moo tax gisoo man suñ may wax affaire candidature Macky Sall man damay wax tout le temps li ma li ma gën a am jafe-jafe ak moom ci côté éthique laa ko gën gis sax côté politique. donc euh, mais ñoom fi mu nekk ni gis nga affaire éthique boobu. nangootuñ ko wax léegi ñoom li ñuy wax rek mooy euh, débat politique la politique euh, voilà mais ce n'est ni juridique ni éthique euh, politique voilà donc loolu mooy sa ça su fekkee ni lii lañu lii lañ bëgg yóbbu Sénégal donc je trouve que c'est médiocre je trouve que c'est médiocre donc ñi fi doon wax yëpp voilà Wade mi ngi bëgg yàq réew mi Euh, surtout Wade li ko gën a gën a gën a reproché c'était pas que. Euh, liggéeyul euh, liggéeyul. wala que sax institutions yi qui le respectait pas mais que dafa doon def lu ko neex. léegi nag moo tax président Macky Sall bi mu ñëwee dafa wax ni gestion vertueuse et sobre. wax lu bari ci affaire bon gouvernance ak éthique. la waaw yooyu yëpp donc fu nekk nii daanaka surtout ci question mandat bi nii moo lay wan ni il a été par le le goût du pouvoir euh, et que maintenant euh, loolu mën na yóbbu Sénégal ci loo xam ni ce sera pas bon pour lui euh, parce que même moom du ci mucc moo tax ma ne am na loo xam ni réalisme ak intelligence rek moo la koy jox quoi te tam beneen danger bi ci am mooy que moom président ma Macky Sall fekkee dafa candidaté admettons mu candidaté jàll déjà Euh, conseil conseil su ne jàll na euh, déjà dina am problème euh, ay dee mën na ci am am na ñoo xam duñ ko mës a nangu nangam nangam mais même su fekkee ni il parvient à surmonter ça ñu jàpp ñi tëj manifestation ñu tere ñi rey ñi nangam nangam après dem élection élection yooyu tam du apaisé du ñaareel ba résultat ba ciy génn tamit du du crédible ba pare et bu faloo aussi il sera pas légitime waaw kay bu faloo tamit pour gouverner réew mi encore ay at du yomb ci moom donc loolu yëpp lu ko fi jar ci ko xam ni comme ni ma ko waxee eh, jaar nga fépp maire ba président ba président def deux mandats tey ji monde bi yëpp nii eh, ñi ñuy jël un peu en exemple en démocratie mais en général africain du jël yooyu exemple eh, deux mandats la def surtout deux mandats après bàyyi réew mi keneen jiite Macron ngi nii xel xalaatul sax Macron di wax ay troisième mandat Muhammad Buhari euh, président nigérien def na ko pare ci def na ko. a cédé et tout avant avant lui le président du Niger. oui surtout. def na ko avant lui aussi Bénin Bénin. xam nga souvent dañuy wax Sénégal Sénégal démocratie no dëkk yooyu ñoo raw Cap Vert ak ñeneen ñoo raw Sénégal ci wàllu euh, joxe mandat. pare mandat et cetera donc euh, donc wax dëgg yàlla côté boobu laa gën a gis léegi nag plutôt que di wax ne non am naa droit. mais crédibilité moo ëpp doole droit moo tax am na yu bëri yoo xam ne sax moom ci pays européen yi kenn bind ko formellement dañ ci juboo rek mais kenn ko def jox ko donc yow sa bopp tam nga ñëwoon wax ne lii moo indi ay fitna. dox rek duma ko def kon léegi pouvoir bi rattrapé na la ba jaral la fitna amaat ci loolu loolu mooy problème mu Macky Sall sur le plan moral euh, éthique te je pense que c'est le plus grand problème euh, boo xam ni il va faire face à ça. et, et que war na ko mën a régler justement euh, par un par un sursaut éthique plutôt que par des calculs et des stratégies politiciennes yoo xam ni ñi na ciy jàppale bu tàngee ba tàng ñu bàyyi la ak sa bopp. cette crédibilité euh, morale ak euh, intellectuelle on a on l'impression que dafa bëri même ci gouvernement yi parce que euh, gis nañu ay nit yoo xamante ni euh, avant dañu doon dénoncer troisième candidature mais après. aujourd'hui dañ koy jéem a légitimer donc je cite pas de lañ il y a beaucoup de ministres ñoo xamante ni tey li ñu doon xeex démb troisième candidature tey dañ koy daganal aujourd'hui cette communauté intellectuelle morale euh, dafa nekk une denrée un peu rare waaw voilà juste kon kon c'est encore un, un indicateur de recul démocratique et éthique parce que euh, ñooñu euh, il faut se dire que c'est beaucoup plus donc par calcul politicien euh, que par que par euh, que par éthique okay. et, par, et respect euh, pour, la République mm. et, aussi euh, pour la paix et la stabilité du pays. donc ñooñu ay intérêt crypto personnel. partisan euh, non euh, ba ñuy wax sax je pense que boobu gëmoon nañu ne effectivement affaire mandat yi nañ ko régler définitivement. Ouais. mais léegi bu ñuy wax leneen. c' est que léegi am na yeneen intérêt crypto personnel partisan. yoo xam ni Macky nekkaat. président moo leen koy sàmmal ko conservation des intérêts personnels. Ah, bien au détriment de l'intérêt général. pendant ce temps la position du peuple alors. ben oui le peuple est oublié entre temps voilà le peuple li ma la te loolu moo tax day sax Afrique pour nga pour comprendre yenn problème yi mooy que d'abord le les africain de façon générale seen problème premier problème d'abord mooy ñàkk a nawloo seen askan. ñàkk a boo xoolee président européen américain yoo xam ne ñeme wuñ koo wax ci seen kanam peuple xalaatuñ ko président africain yi rek ngay dégg saa ñu wax ay wax yu enfantillage yoo xam ne ay njaaxum yoo xam ne wala ñu dem ba pitim réew sax di wax voilà ci africain donc am nañ problème bu problème bu sérieux la waaw ñàkk a sa askan et manque de fierté aussi waaw euh, waaw manque de de fierté parce que am na loo xam ni euh, yow sa bopp yaa ko war a bañal sa bopp yaa war a euh, yëkkati ton peuple vers le haut pas le tirer le bas mais tey ji Sénégal quand même la classe politique wax dëgg yàlla est en train de tirer le Sénégal vers le bas donc euh, il faut vraiment que le niveau du débat soit élevé et le niveau d'éthique aussi ànd ci euh, sinon on va vers des lendemains sombres sombres voilà euh, donc c'était euh, loolu mooy euh, li nga xamante moom mooy troisième candidature bi alors euh, mais tamit dañuy ñëwaat si justement les candidatures déclarées déjà Euh, de de certains membres de l'opposition ñoom Déthié Fall euh, ñoom Khalifa Sall ñoom euh, Ousmane Sonko d'ailleurs il est candidat ak les membres de PUR ak institut ak ñeneen ñu bëri alors mais ba léegi li ci ëpp ci candidature yooyu dafa am gàllankoor les cas de Bougane ñoo xamante ni dañoo am empêchement que juridiquement parlant les cas de Karim Meïssa Wade il est empêché juridiquement selon le code le code électoral en mais également am ñeneen ñoo xamante ni ils ont euh, ils font face à l'obstacle du parrainage boo xamante ni euh, mën na leen gàllankoor Bougane Gueye à chaque fois ci élection yi du ci participer parce que dafay am problème parrainage donc ak ñeneen mooy que ni beaucoup de candidats qui se sont déclarés mais y a aucun candidat aucune candidature qui est confirmée. c'est vrai. à dix mois de la. waaw euh, je pense que justement le. le président Macky Sall euh, justement war na mooy li ma wax être un peu au-dessus de la mêlée euh, xalaat mais bu fekkee ni déjà moom ci boppam dafa xalaat pour nekk candidat ça difficile pour lui d'être au-dessus de la mêlée <laughs> il dans la mêlée donc voilà mais sinon war na am te Sénégal euh, il a ce cette dette morale éthique par rapport au Sénégal mooy liko ko Sénégal defal yëpp donc moom war na bokk ci nga xam ni dañ fi war a bàyyi euh, euh, tour bu rafet euh, ci wàllu démocratie bi ak république bi et cetera donc fi mu nekk nii lijjanti ba nga xam ni daanaka mën nga wax ni buñ ko seetee ba seet ñi nar a mën a nekk candidat boo moytul du bari wala bokk day nekk ñoo xam ni amuñu boobu mbooloo nga xam ni gañe leen dana yomb loolu tam pour man c'est pas une victoire démocratique Euh, vraie victoire démocratique mooy nga bàyyi ñi nga xam ne ñëpp rek bëgg nañu présenter seen programme de gouvernance au Sénégalais nga bàyyi leen ñu def compétition bu libre bu transparente te yow tam la nga waxoon nga respecté ko bàyyi yeneen Sénégalais yi ñoom ñu wax seen programme euh, Sénégalais yi voté pour man loolu la Macky Sall war a garantir euh, su deful loolu il serait passé à côté vraiment de euh, de l'essentiel quoi d'accord alors euh, ñu demaat ci beneen euh, question bi ñu ñëw ci euh, l'actualité un peu internationale cette fois-ci dañuy dem fële nga xamante ne mooy Russie jaari Russie également convaincre toujours le président chinois parce que dafa am benn rapprochement existé entre la Chine et la Russie comme si c'est une stratégie de également faire face euh, aux États-Unis et à loolu la kay loolu la parce que même boo xoolee tey Afrique fi mu nekk nii. yaa gis États-Unis ak euh, Union européenne fi mu nekk nii ñu ngi gën a euh, defar seen taxawaay. ci boo xoolee par exemple Afrique de façon générale ak Afrique de l'Ouest euh, parce que gis ni Russie ak Chinois yi ñu ngi fi gën di am doole. donc àdduna noonu lay doxee. Mm-hmm. donc géopolitique amul yërmandeeg yooyu ay intérêt d'État Euh, moo am donc képp ku la naan sama xarit nga euh, am na lu mu soxla ci yow euh, loo xam ni moom lay lijjante ak yow daal donc rapprochement Russie ak Chine c'est un rapprochement stratégique parce que fi mu nekk nii nag Russie moo gën a soxla Chine Russie waaw parce que Russie quand même sur le plan même militaire et tout et guerre bi Ukraine guerre du mës a yomb du mun a yomb même boo ëppee doole ki ngay geeral Euh, da nga ci am ay perte et cetera donc du yomb. Hmm. aussi gaz am ak ay monnaie am ak devise am yooyu yu ci bëri. Chine la ko mën a régler. donc bouffée d'oxygène la pour Chine. Uh-huh. mais en même temps tam Chine tam soxla na Russie. parce que Chine tam xoolal problème ak Taïwan. Hmm. ak problème yi mu am aussi ci xam na ne eh, Union européenne ak États-Unis hmm. mën nañ ko tañ ci partout dans le monde ak fii en Afrique. Eh, gis nga kon tam Chine tam soxla na Russie. donc seen rapprochement boobu c'est très très euh, stratégique et c'est pour ñoom ñaar. ku ci européens yi ber rek duma la. ok voilà donc moo tax ñoom ñu ngi def rapprochement. Mm. et d'ailleurs boo ma boo seetee ci même cadre boobu sax boo xoolee chinois yi ni ñu fexe ba rapproché Iran ak. Euh, uh-huh. Arabie Saoudite nga xam ni ñoom ça fait dix ans. d'accord demoon nañ ba nga xam ni consul. consulat Arabie Saoudite dañ dañ ko dañ ko attaqué woon en Iran nga xam ne kon affaire bi eggoon na ba nekk un problème d'état d'accord mais kon fu nekk nii chinois yi fexe ba dox diggante bi euh, tout ça c'est pour créer aussi benn benn zone d'influence. zone d'influence aussi au niveau des des pays euh, du Golfe. ok alors ñu gis na également si loolu également gis nañu euh, la CPI la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre euh, Poutine loolu moom xanaa c'est justement symbolique mais quand même kenn seen tool mu am. waaw xam naa que c'est symbolique <laughs> waaw c'est cynique même parce que. xam nañ ni CPI. Russie si ñëw ko euh, donte woon sax ah dañuy dégg ay juristes yu wax ne ces pays mën nañu intervenir même ci dëkk boo xam ne wala ci koo xam ne si wu signé wu wala et mais quand même hypocrisie am na ci parce que euh, tey jii ñiy applaudir ñëpp tey jii États-Unis signé wul ces pays Trump fii la fii la interdiroon territoire américain euh, waa CPI euh, Fatima Bensouda ak ñooñu ne leen duñ dugg États-Unis boobu temps kenn yuuxuwul daal ne lii jaaduwul européens yi wax nañu rek c'est normal mais fa lañ ci yem donc euh, pourquoi léegi ñu bëgg CPI nag léegi di agir contre contre Poutine c'est seulement purement symbolique quoi mais bon gis nañ tam Poutine luñ ci tontu nul et non avenu ku nekk carte boo mën a jëfandikoo rek yaa koy jëfandikoo mais Poutine c'est pas un Hissène Habré c'est pas un keneen koo xam ne mën nga koo jàpp fenn jugé ko tëj euh, du yombee noonu quoi ok euh, ci biir loolu aussi gis nañu euh, Biden il profite à chaque fois que le genre yooyu am il il jubile il victoire parce que a apprécié la décision et le courage de la Cour pénale internationale même si il sait bon au de lui d'après juridiquement parlant ca peut créer mën na am ay empêchement ay obstacle wala loo xamante ni dafay empêcher euh, mu sotti par exemple gis nañu Barack Obama euh, ce qu'il la fait en termes de crime et nga xamante mooy George Bush également ce qu'il a fait euh, ci Pakistan loolu yëpp ça quand même histoire ak ak ak des les premiers ministres israéliens successifs massacres yi ñu def mais qui sont toujours protégés par voilà donc pourtant ces pays bu mu commencé def ay enquêtes ci Israël rek daanaka wàpp dañ leen teel a woon ni Euh, tey ngeen arrêté loolu am na benn euh, tribunal bu am compétence universelle bu nekk Belgique bu nekk à Bruxelles ak compétence universelle mais ñoom tam bi ñu yëngalee dossier Israël rek Israël commencé day nekk tribunal bi sax dañ ko war a tëj nangam naam gis nga euh, CPI voilà Bush li mu def Afghanistan américain li ñu def Afghanistan li ñu def ci Irak sur des choses yoo xam ni qui n'ont jamais été prouvées ay ay yu fa nekkoon xaw ma destructive ah, arme de destruction massive qui n'ont jamais été trouvée nga rey plus de deux millions de personnes donc ñooñu tam CPI waroon na def enquête ci ñoom loolu moo taxoon Amérique euh, africains yu bëri di wax ne CPI pour africains yi la ak yenn kii donc euh, gis nañ tam dossier Hissène Habré bi niñ ko lëmasee mm-hmm. euh, voilà Hissène Habré mënoo ko juger sans juger Driss Déby ak ñeneen ak ñeneen finalement il est décédé waaw ndeysaan gis nga donc relation géopolitique moo tax ma ne la amul yërmande rapport de force la loolu moo tax Russie ak euh, Chine xam nañ ne suñu boolewul seen doole gars yi seen kaw lañ jëm africain itam nañ tiré ay le ci yooyu yëpp bañ a nekk fi ay ñii sama xarit lañ tubaab bi sama xarit la kii na intérêt d'état moo am euh, moo tax nekk nii Burkina ak Mali ñoom ñu ngi jouer seen avenir ah ñu ngi koy jouer waaw parce que ñoom ñu ngi xool vraiment euh, lan mooy intérêt wu seen dëkk et que France taxawul ci intérêt seen dëkk ni ko bëggee ci la gën a taxaw moo tax fi nekk ni gis nga leen ñoom ak Russie ak euh, ni muy demee donc il africain que yi tirent les leçons de de tout ça pour ne pas être à la traîne comme depuis euh, euh, quelques années. mais au-delà du rapprochement euh, il euh, y beneen également stratégie parce que gis nañu l'Iran et les Arabies Saoudites l'Arabie Saoudite plutôt euh, il ya a une certaine. Euh, benn réconciliation seen seen diggante bu ñu xoolee les les années passées quand même il y pas un climat paisible boo xamante ni euh, bu amoon seen diggante mais aujourd'hui euh, les la Chine ak ñeneen sont parvenus à quand même réconcilier les l'Arabie Saoudite et l'Iran alors c'est une manière pour préparer benn genre partenariat wala benn genre groupe bu nekk Chine état Chine plutôt la Russie ak l'Iran pour quand même préparer Voilà. Et man, et oui, j'ai l'impression qu'il y qui, nous échappe, quoi, dans, en tout cas, moi qui m'échappe dans cette affaire-là. Parce que, parce que vraiment, réconciliation, Arabie Saoudite, Iran, oui. en plus menée par la Chine, la pour man euh, waxagul secret yi ci nekk. non parce que voilà parce que par exemple réconciliation boobu. j'aurais j'aurais plus euh, attendu que monde musulman bi def ko quoi. par exemple OCI Ligue islamique mondial daal na ñaari pays musulman lañ euh, ànd ak Turquie ñu ñu dox ko ah ak yu mel noonu dem dox ko quoi Égypte ah mais que Chine Chine mën a jubóole Arabie Saoudite ak Iran alors que Arabie Saoudite ak Iran seen problème d' abord c' est d' abord c' est un problème de doctrine musulmane chiite sunnite yi ak leadership musulman bi donc loolu Chine seen yoon newu ci ne serait-ce que coté côté boobu ñaareel ba seen guerre d' influence dans la sous-région gis nga guerru Syrie bi yëpp guerre d'influence la ak Yémen euh, ak Liban ba ci Afghanistan am na voilà donc moo tax ma ne am na lu ma échappé léegi Chine yan levier la yëngal ba mën a wan Iran ak Arabie Saoudite que mieux vaut ngeen juboo ba ba roi Arabie Saoudite invité na le président iranien à venir en Arabie nga xam ne kon du rek euh, juboowu nii euh, mais que c'est vraiment quelque chose de concret je pense que dans les jours à venir danañ gën a comprendre quelque chose parce que xam nañ tamit Iran nu mu anti israélien Israël ngi préparé nu muy attaqué guerre Iran dugal ci OTAN ak Union européenne sous prétexte que Iran dafay def ne soyez pas étonné que du jour au lendemain Israël bombarde Iran mi ngi koy def Syrie toutes les semaines mu bombarde Syrie ne ay Iraniens yu fa euh, loolu kenn déggu ci ces pays kan moo mës a gis benn pays di bombarde un p souverain sur ses propres considérations kan moo mës a gis loolu dans la géopolitique moom la Israël di def Syrie Syrie c'est un pays souverain même bu fekkee ni y a une guerre civile là-bas et voilà un autre pays qui bombarde un pays souverain sous prétexte pays boo xam ni attaqué wu ko de mais seulement que ni am na ñu fa nekk ñoo xam ne suñu ennemi lañ dañuy dem bombarder foofu rayaale ñu leen neex foofu quoi donc ku mës gis loolu et euh, donc problème boobu euh, je me donc je me suis posé beaucoup de questions sur rapprochement arabe saoudite euh, États-Unis la mës a jege euh, parce que libéralisme foofu en plus euh, saoudien ni ñu ragalee le communisme moo tax je si suis am na quelque chose boo xam ne peut-être dans les jours am na lu tax euh, Iran ak Arabie saoudite ku ci nekk ne xaaral ma teg lii de côté juboo te loolu je pense que leeragul bu baax leeragul espérons que dina leer beneen question mooy gis nga xam nga après durant l'administration était très proche Euh, du, du roi euh, saoudien d'ailleurs amoon na benn contrat d'armement bu ñu signé woon entre euh, amoon entre les États-Unis et l'Arabie saoudite mais gis bu ñu gisee exactement le rapprochement bu jógee Chine ak Russie Russie également di contrecarrer les États-Unis di menacer également l'Union européenne ñu gis ne la Chine a joué le rôle de réconciliation Euh, pour jéem a euh, fexe ba euh, kii l'Arabie saoudite et l'Iran dépasser les disputes via l'histoire du passé mais quand même est-ce que quand même on tend pas vers un retrait entre mm-hmm. de la relation entre mm-hmm. l'Arabie saoudite et ah, les États-Unis voilà si la Chine intervient voilà loolu mooy sama hypothèse mooy que xam nga Biden d'ailleurs d'ailleurs dès le départ Biden avait dit que il va revoir ses relations déjà avec unis l'Arabie Saoudite donc dama foog ne effectivement tendance boobu moo nekk di daw di que saoudiens ils sont en d'anticiper pour man hypothèse boobu rek ko mën expliquer parce que euh, le fait que euh, Arabie Saoudite nangu réconciliation ak Iran ak ni mu nekkee ennemi Israël ak États-Unis plus jegante encore ak Chine Arabie Saoudite xam loolu yëpp ba pare nangoo juboo ak Iran bay invité président Iran ça que pour man Arabie Saoudite ni ngi anticiper lâchage États-Unis gisuma beneen hypothèse bu ko mën a expliquer parce que tant que Arabie Saoudite mi ngi doon am encore garantie que nii euh, États-Unis xaritam la euh, bu ko Iran bëggoon song fii tey wala leneen bu mën a doon euh, il faut compter sur les États-Unis kon duñ def bi rapprochement parce que rapprochement bi mënul neex États-Unis donc je me dis que su ko Arabie Saoudite di defee mu mu fàngaaral nii ça veut dire que nii ci seen dossier diplomatique yi stratégique yi xam nañ ne. il est temps euh, de faire bloc avec la Chine l'Iran et la Russie par rapport ak euh, États-Unis et soo waxee États-Unis wax nga OTAN wax nga Europe. ok euh, ci euh, aussi un peu di parce que loolu dafa nekk actualité un internationale parce que dafa am ay député euh, français yu bind Macky Sall yu wax ne Macky Sall bu qui dort parce que diable diable bi mooy tentative de troisième candidature. Euh, askan buñu ko donc bu ko essayé également ñuy dénoncer euh, comme ni ñu doon waxtaanee sànq les arrestations yu existé euh, ci société civile bi ci journalistes yi li xibaar yi ci ñi nga xamante ne également ay activistes lañ wala ñoo xam ne justement dañoo décider rek exprimer wu donc yooyu député français du domaine solo ah mais écoute c'est c'est normal parce que de toute façon muy Macky Sall muy keneen képp koo xam ne jekk woon nañ la fi état bi jekku la fi dem nga Jeybaane euh, Sénégal. boole euh, à boole. ci chancellerie yi fii. ak à kon tamit euh, Macky Sall du ko du ko war a déranger. Mm-hmm. que aussi ñi nekk ci opposition fi mu nekk ba mu di ko jeybaane partout dans le monde waaw léegi nag député yooyu ñoom seen réew may na leen ñu def loolu léegi nag moi je me dis ñi nekk ci pouvoir bi fii c'est à eux de répondre à ça ñooñu def nañ lu civilisé mooy bind lettre na leen nangam nangam. ñoom tam nañu répondre ci loolu et euh, aussi man ce qui est sûr c'est que mënuma xalaat ne Macron favorable ci candidature Macky Sall parce que pour une raison euh, euh, du ko ko du ko conseiller Macky Sall parce que Macky Sall xoola ma ne Macky Sall xoola Macron transition Tchad bi mu bi mu bi xawoon admettre noonu rek li mu ko indil ay problème du jeex du xaaj te transition donc la. waxuma waxoon na voilà. donc alors que sax c' était des conditions critiques mais gis nga amul lu ñu ko waxul France donc fi mu nekk nii ñaareel ba Macron il termine xam nga kuy terminer moom amoo looy calculer. donc lu tax muy calculer naan Macky je bien naa la jàppale pourquoi il n'a rien à... donc il va dire la vérité à Macky Macron parce qu'il termine il va dire mais fais comme le Nigeria nga joxe loolu la koy wax donc. Euh, gis naa ay Sarkozy nag jaabante fii ak yeneen genre nga xam ne moom euh, <laughs> yaakaar ma ni dinañ la conseiller lu baax quoi donc. d'accord mais le premier conseil ça doit être ta propre conscience. le respect de ta parole et euh, l'amour du pays qui qui doit passer par par une transition par des élections libres démocratiques mooy moom moo doon nekk sa premier atout. t'as pas besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur mais en toi-même en ta force morale euh, l'amour de ton pays. voilà le respect de la parole donnée loolu kenn keneen mun la ko jox euh, voilà te boo ko boo ko deful aussi euh, lu ne mën na la cee fekk ci loo xam ni euh, doo bàyyi tur bu rafet dans l'histoire politique de ton pays. pour pour appuyer sa li nga wax déjà comme Macky Sall yaakaaroon ne Macron dina dina appuyer la candidature de Macky Sall en 2024 gis nañu même Macky Sall en tant que président de la République a reçu l'opposante numéro un euh, du régime de Macron est-ce que loolu tamit y a pas contradiction vu les relations entre le Sénégal et la France diplomatique diplomatiquement parlant ah. le président de la République reçoit l'adversaire numéro un du président français loolu de voilà warul neex Macron de pense pas voilà aussi dafa am non dit aussi euh, non dit cest dire maanaam euh, lu ñu Sénégalais yi. waaw yaa yaa oui ñun surtout yi li ñu xamul ak a bëri. di que Le Pen moo nekkoon numéro deux à l'élection présidentielle en tout cas euh, Marine Le Pen moom euh, ay éthique yooyu gêné wu ko. donc voilà donc surtout par rapport africain yi pour moom africains yi c'est des c'est des peuples yoo xam ni luñ mën a def rek ba euh, ñu toog seen désert yi fii seen forêt yi fii bañ ñëw France. Euh, day baax suñu amee tam ko xam ne mën na leen téye ba tey day baax donc euh, Marine Le Pen loolu moom du bett ci moom mais euh, fi àdduna toll nii ak fu nekk éveil de conscience bi am en Afrique yaakaar naa ni léegi di jouer tubaab yi yenn rôle yi moom ñàkk xam lu xew la te fu ñu mujj du baax voilà loolu moo nekkoon mais mais avant ñu jeexal gis nañu Hadjibou Soumaré la premier ministre d'anciens présidents même de la commission UEMOA Hadjibou euh, Soumaré euh, dañ koo def euh, li ñuy tuddee contrôle judiciaire parce que dafa am ay question yi mu posé président Macky Sall di ko wax dem ba tudd ci huit huit mille huit mille euros su ma jubalee. huit millions de doxam voilà huit milliards. voilà huit milliards huit milliards di ko laaj ndax da nga koo jox soxna Sonia di Marine Le Pen mais après li ko ci fekk mooy dañ ko woo yóbbu ko garde à vue def ko tribunal. Eh, yóbbu ko ci kanam procureur procureur defal ko contrôle judiciaire laajte par exemple loolu man voilà par exemple loolu man. Euh, wala laajte bi kon xëy na man su ma kon xëy na man su ma laajte woon dara yenn kii kon kon tam jàppoon nañ ma parce que man laajte naa fi quatre ou cinq questions. sur le projet de Akon City. Akon City. ñenn ñi comprendre ñu ñenn ñi ànd ak moom xëy na euh, yuuxuma lu ne ñu wax ko te damaa laajte dong. maintenant donc. Euh, loo ci laajte woon dama laajte woon. Euh, affaire bi quel est le statut du foncier. foncier boobu ñu ko jox. est-ce que moo ko moom wala état bee moom séddee ko. Ah, surtout ko séddee. c'est intéressant à des questions intéressantes beneen bi crypto-monnaie bi mu wax ne daf ko fay def. est-ce que BCEAO validé nañ ko parce que Sénégal lépp lu ñu fi war a def kii. Euh, beneen bi il a parlé d'une gendarmerie. Euh, propre à cette zone-là ma est-ce que lii du nekk état dans l'état. merci j'avais quatre ou cinq oui oui. mais am na ñoo xam ne dañ ma yuuxu ne mooy lu baax ci réew mi naan ma mais donc laajte c'est un droit citoyen ce qu'on appelle d'ailleurs c'est le c'est man souvent foofu laay foofu laay. d'ailleurs même l'État du Sénégal devait répondre à ces questions. oui le contrôle de l'action publique le contrôle citoyen de l'action publique. c'est une obligation pour l'État de répondre aux questions des citoyens mais ba ma posé question yooyu. Euh, Akon répondre ci ma ministre du tourisme na répondre musu ci répondre ba léegi Mame Mbaye Niang ci bopp bi mu ñëwee effectivement léegi dañu nar a retirer affaire bi parce que ça n'avance pas euh, ay kon daw dem defar fa benn centre pour les jeunes xaw ma lan de douze millions xaw ma lan la pour wane ni ba tey. n'avance pas. depuis boobu ça ne bouge pas. ok donc euh, léegi Aliou Soumaré pour man dafa poser question accusé wul mais question dañ ci répondre rek wala nga bañ a répondre c'est-à-dire que soit le pouvoir pouvait ne pas répondre Aliou lu mu leen di mën a. soit répondre de énervement bi bi bi bi ñu gis tëb daal di koy convoquer je me demande aussi comment voilà le procureur comment il va accepter qu'on convoque quelqu'un qui a posé des questions juste il a posé des questions au chef de l'État donc il n'a même pas remis en cause l'État wala dara lu war a le procureur de la République di ko recevoir et cetera di ko jàpp mais il a posé une question je me dis tam côté état bi tam j'ai senti pas côté état bi côté pouvoir politique bi j'ai senti que ah que question boobu est-ce que vous avez donné de l'argent si oui nangam nga ne ko nous n'avons pas donné d'argent c'est simple donc paniqué nañ ba ci def contrôle judiciaire nit donc mooy judiciarisation boobu c'est pas un bon signe pour pour pour la la démocratie c'est au contraire un signe de panique te nag te nag euh, pouvoir bi suy paniqué day yóbbaale état bi ci panique boobu parce que ñoo yore appareil d'état bi donc euh, d'ailleurs gis naa aussi beneen danger mooy dama gis yenn jeunes yi actuellement ci ak yenn femmes yi aussi ci euh, de la mouvance présidentielle yoo xam ne fu nekk nii daanaka da dañuy pousser le président à à à durcir et à sanctionner euh, on peut dire euh, avec la force de l'État en tout cas une partie de l'opposition yooyu yëpp yomb naa wax ni mais c'est pas une bonne tendance pour le pays Voilà, euh, c'était quand même euh, euh un plaisir, euh, comme nous à chaque fois, du euh, Dalal euh, Imam Amadou Bakhtar Kanté. C'est juste qu'on est arrivé au terme de l'émission avec le grand technicien Fallou. xanaa ñu bàyyi la justement nga tàggatoo ak suñu mbokku internet yi. waaw Thion Fallou maa ngi leen di nuyu di leen sargal encore leen encourager ci seen liggéey bi parce que vraiment. lu am am solo parce que rôle bi ngeen di joué c'est très très important day permettre opinion bi mën na déglu euh, mën na tamit def ay recoupement et cetera et donc su ngeen doxul euh, di ko def euh, dana am lu bëri lu ñuy manqué ci réew mi parce que plus nit ñi di comprendre plus nit ñi di ànd ak dal di xam choix yi ñu war a def quoi kon tam yal na leen yàlla defal tawfiq te nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi doon topp ci DKR 221 et à la prochaine incha allah. voilà donc euh, c'est clair donc ça a été également ce immense plaisir de présenter cette émission. Euh, vous également qui nous suivez depuis fu ngeen mën di ci Sénégal à l'extérieur ou autant quel que soit le coin euh, bi ngeen nekk ci àdduna si euh, di leen ñaanal également de passer un excellent mois de Ramadan de Carême également si vous voulez également di leen ñaanal fu ngeen nekk rek yàlla defal leen jàmm ak tawfeex également di remercier aussi imam parce que pour sa disponibilité ainsi que la pertinence dans les propositions et dans les émission. En c'était tout pour aujourd'hui. Merci à la technique, à la régie, euh, à Liga Hamatini, assurée par Hadj Farlou. Jërëjëf.